rafet na xeex bi nag day dooru commencé donc ndax système bi dafa yàgg biir Grand Moulin de Dakar golo di bay baabun di dundee ñu ñoo fiy nekk 24 heures sur 24 amul samedi amul dimanche ñu ñooy liggéey guddi ak bëccëg et malgré tout ça masse salariale travailleur Grand Moulin yëpp les 298 benn directeur mën na leen fay benn expatrié mën na fay tous les travailleurs des Grands Moulins de maîtrise confondue euh, comment dirais-je employé ouvrier confondu cadre confondu lu EG wax nag moo fi nekk nit ki soo bëggee sa sa nekkin soppeeku yow yaay taxaw temm xeexal ko sa bopp yàlla suñu borom yàlla suñu borom wàccul di dox kenn waaye dafa wax ni may na leen kàttan may na ñu xel may na ñu doole pour nu mën a xeex suñu àq ak suñu yelleef Grand Moulin nag li fi nekk pendant des années dafa metti rawatina nag ces six dernières années avec l'avènement du du de avec l'arrivée du DGA monsieur Franck Baba avec son DRH monsieur Papa Abdoulaye Djiga lu ñuy dund Grand leen dafa metti dafa jégg dayo lu ñu dàq ëpp na plus de cent soixante travailleurs ñooñu ñëpp ñii dee nan yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen ñii dof nañu ñii seen kër tas na ñii ñu ngi ci àll bi di taxawaalu te ñooñu ñëpp suñu ay naataangoo woon lañ def plus de ñii plus de trente ans de service ñii def plus de quinze ans de service ñii def plus de vingt ans de service donc apporte nañ benn plus-value pas négligeable ci biir société bi mais malgré tout ça on les a licenciés avec des motifs très très très fallacieux loolu nag camarade lu koy firndeel mooy suñu cinq camarades yi ñu mujj licencié dañ leen licencié ndax lu tax ñun Covid bi lañ nekk déjà avant Covid bi amuñu woon possibilité organiser assemblée générale rawatina Covid bi ñëw donc kenn mënul woon regroupé wu alors ñu créé suñu groupe whatsapp le 19 mai xam ngeen le 19 mai ak léegi yàggul ñu créé ko ci biir koor gi le 19 mai le 4 ak le cinq juin donc même pas un mois ñu bëgg a licencier 13 personnes ci benn tàkkusaanu àjjuma alors ci 13 yooyu 8 dañ ci nekk ay délégués te ils ont tous les mêmes motifs de licenciement ñoom ñëpp dañoo wax les mêmes motifs wax ni ay terroriste lañ ay bandits de grand chemin lañ ay nervi lañ dañoo bëgg rey tubaab bi yooyu lañ bind ci sommation interpellative sommation interpellative bi loolu lañ ci bind alors ñu dem ci yoon muy inspection du travail alhamdulilahi rabbil alamin Sénégal est un pays de droit on a des personnes très aguerries danoo jàng xam lu ñu jàng ragal yàlla xool seen diggante ak seen borom di àtte dëgg alors l'inspecteur a dit le droit mun bañ a autoriser licenciement des huit délégués alors commence se fait-il nga bañ autoriser licenciement de huit délégués et pour ce même motif cette direction s'entête à vouloir licencier les cinq autres travailleurs parce que ñoom amuñu kiiraay amuñu protection non am nañ protection c'est pas des délégués mais am nañ protection c'est pas des mais am nañ protection te seen protection boobu ñan la yéen collègue neen travailleur Grands Moulins yéen nay seen ay protection yéen a mën a taxaw comme un seul homme uni autour de l' essentiel pour que ñu xeex ba suñu cinq collègues yooyu dugg si waat biir Grands Moulins parce que li ñu leen licencié parce que lii ñu leen licencié moom lañ ñu bëggoon licencié man mii toog di wax a yéen ak sama collègue yi toog ci ginnaaw te yoon da koo dàq kon xam nga ni motif bi c' est pas valable pour licencier mais malgré ça la présidente du Haut Conseil du dialogue social, que nous saluons de passage, représentée ici par notre doyen monsieur Pape Diallo ñu ngi koy gërëm di ko sant def na le tour def nañ le tour pour que nu ñëwaat à de meilleurs sentiments pour que suñu cinq collègues yooyu dugg si mais direction dafa ni ñett pour lan mu ni ñett xëy dafa am fu mu ko teg waaye nag ñun suñu dëkk lañ nekk. ñun ay sénégalais lañ fii la ñu juddoo fii la ñu màggee fii la ñu yaroo te fii la ñu tekkee nag ci biir Sénégal ñun demuñu dëkku kenn demuñu dëkku kenn di fi wuti dara fii la ñu toog di fi liggéey fii ci suñu réew donc te réew mi réewu yoon la même bu fekkoon dañoo fote même bu fekkoon dañoo fote Macky Sall dafa génne ordonnance pour protéger les travailleurs pendant cette période de Covid parce que xalaat na sax moom day protéger ay travailleurs balaa dara xew mu ne képp koo xam ne dafa faute lourde waruñu la dàq ci pendant période du Covid bi mais malgré tout ça suñu directeur général nee na ñett moom day continuer dàq day continuer dàq parce que parce que dàq lañ xam parce que ñoom pour ñoom dañu war a terroriser dañu war a réduire à des moyens que rien dañu war a jàppee comme ay bête de somme bu ñu xëyee ñu takk suñuy bagage ñëw liggéey ba suñu nuunara yi tàng ñu wàcc ñibbi su weer dee lu ñu am nu jox nu nu baisser la tête avance dem non c'est révolu on est au vingt et unième siècle on est au vingt et unième siècle ça c'est révolu mes dootul amati dootuñu ko nangu nous lançons un vibrant appel au groupe Cibor Ils ont investi beaucoup d'argent pour acheter les grands moulins de Et nous, on est là, à se sacrifier corps et âme pour qu'ils retrouvent leurs fonds dans les plus meilleurs délais. Mais à condition que nous jox na suñu àq ak suñu yelleef nous lançons nous lançons encore un vibrant appel nañu xam ni grand moulin machine du ñooy dawal seen bopp ñun ouvrier yii ñoo koy dawal bu ñu ñëwee nañ fexe waxtaan ak ñun nañ fexe toog ak ñun boobu ba tey ñu ngi def tous les pour les rencontrer mais malheureusement cette direction daf ñuy barrer la parce que xam nañ ne bu ñu ñëwee toog dina mel na la Joor tubaab ba wiiri wiiri gi dina bare lool mais nag mais du ñu bàyyi du ñu bàyyi parce que dañoo am un objectif bien précis te dañuy dem doxi wuti suñu objectif on ne lâchera jamais bu soobee yàlla suñu borom dinañ ànd ak suñu kilifa yi dinañ ànd ak tous les travailleurs des Grands Moulins Dakar hommes femmes confondus dinañ ànd ak ñëpp ñoo nga xamante ni ñu ngi nekk ci industrie alimentaire bref dinañ ànd ak tous les travailleurs du Sénégal pour ensemble ñu lutter contre cette injustice qui sévit dans les entreprises plus particulièrement aux Grands Moulins de Dakar nous vous remercions encore une fois merci